xamante ne noonu la ñuy euh, gàntalee yenn euh, xeetu euh, manifeste yi nga xamante ne moom la ñuy def ci biir réew mi. am na ci taxawaay soo xamante ne Fatou. Mhm. nguur gi dafa ci daal di am waa F24 ils l'ont payé à plusieurs reprises. waaw ex parti Pastef opposition bi sax lay wax de façon générale. Mhm. Mhm. ils l'ont ils l'ont payé à plusieurs ñu toll itam nañ ne loolu daanaka am na lu mu jur. on parle de mhm. sonkorisation entre entre guillemets. ci ci ci ci fépp foo xam ne dem ci wàllu woon euh, lan lañ ci lan lañ ci mën a retenir nga xamante ne noonu la ñuy gàntalee quand même euh, ñàkk may euh, sénégalais ñu mën a exprimer ko. waaw mais xam nga professeur wax na lu am solo. nee na l' état doit respecter le droit état. dafa war a respecter yoon parce que tamit euh, si fàttali en 2012 président Abdoulaye Wade su doxalee woon ni président Macky Sall di doxalee amaana du falu mën nga bëgg mën nga bañ mën nga d'accord ak président Abdoulaye mën nga bañ a d'accord ak moom mais une chose quand même claire da doon autoriser manifestation yi ñu koy defee fañ ko war a defee place de l'Obélisque wala feneen ñii di ko def na mu waree mais aujourd'hui Euh, au Sénégal da ngay gis parfois ay motifs de refus yoo xamante ni yow doo ko comprendre dañ lay ne xam nga menace de trouble à l'ordre public ñu ne la détawaay mu ne la entrave à la circulation des personnes mais naturellement une manifestation une marche foo jaar day entraver la circulation donc bu dekkee loolu kese la mën nañ ko dindi si constitution bi ne désormais manifestation amatul parce que non naturellement manifestation boo gis boo ne bërëb bi laa koy defee ginnaaw bi ñu la autorisé foofu da ngay entraver circulation bi pendant bi ngay manifester instant bi ngay manifester boobu noonu da ngay entraver ñi fa dëkk ñi fay romb naturellement dina am ay déviation par exemple boo xoolee manifestation bi am à New York ñi nga xamante ni euh, waa patriote patriotes yi ñoo ko ñoo nekk ñoo nekk derrière mais gis nga ça entravé la circulation mais de de de mettre de l'ordre pour permettre aussi ñi nga xamante ne ñu war a dem ñu dem ñu war a taxaw manifester manifester il faut président Macky Sall delloo ñu suñu Sénégal nañ ko ko joxe jox nañ ko ko si njekk ginnaaw moom dafa bëgg ñu jox ko njekk bien sûr jox nañ ko ko si njekk mais na wax dëgg yàlla war na ko mën a delloo Sénégalais muy parti au pouvoir muy opposition yoon moo maye ku bëgg a manifester am lu ko naqari nit sax mën a manifester mbégte xam nga dañuy jàpp ne Sénégal sax ñun notre entendement mooy manifestation pour wane li la naqari la mais nit mën nga manifester ngeen man damaa kontaan nga wane ko fësal ko professeur def na liggéey bu am solo ngeen am euh, envie sargal ko ngeen génne ne dañuy sargal professeur dañuy sargal président loolu war nañ ko mën a def donc dañuy ñaan président Macky Sall mu delloo ñu li nga xamante ni constitution moo ñu ko may mu doon loo xamante ni c'est un droit boo xamante ni non négociable te loolu day wone ni tamit Sénégal mu ngi dellu ginnaaw. en matière de démocratie nous étions une vitrine foo déglu foo foo dégg ni Sénégal c'est vitrine de de la démocratie de de la démocratie oui waaw mais waaw xam nga professeur Ismaïla Madior bon wax dëgg yàlla dañ koy respecter jox ko cër si xam-xamam mais parfois am na position yoo xamante ni jël na ko fii yoo xamante ni ñun ñi nga xamante ni gaa bon yokk tolluwuñu moom niveau mais d'accord uñu parce que dafa am yoo xamante ni logique moom le bon sens est la chose la mieux vraiment jàng jàngoo bon sens moom dafay leer si ñëpp donc euh, ñuy ñaan rek président Macky Sall gën a may nit ñi ñuy mën di mën a mën a manifester euh, waa F24 plusieurs fois waaye Y'en a ñaan nañu mu bañ waa Yewwi Askan Wi ñaan nañu mu daal di bañ et puis waaw ouais, mais c'est compliqué quand même avec, avec euh, malheureusement le préfet de Dakar man man man dama ko xam man je pense bon je comprends pas hein, préfet de Dakar euh, c'est c'est Mortalla euh, franchement saa yu ma liiree communiqué am <laughs> moi je vois que du copier-coller parce que euh, ni mu interdire manifestation bi ce sont les mêmes motifs qu'il répète mm. te vraiment bu yàggee tam population bi day wut yeneen moyen mm. wane naqaram te comme on est dans une démocratie nañu bàyyi nit ñi librement ñu manifester wane seen naqar wala seen mbégte mm. mais ginnaaw bi ngeen ko xañee nag dañuy wut yeneen moyen te moyens yooyu ni ko professeur waxee c'est des moyens yoo xamante ni kenn du ko kenn du ko rafetlu parce que nit ki boo ko xañee tamit ba mu dem am yeneen moyen muy wane mu koy wane di wane naqaram tamit ñun ñëpp ñoo si am ay gàllankoor di si am ay regret hmm. di am yaakaar ne peut-être président Macky Sall dinañu dimbale delloo ñu suñu réew dañ ko ko joxe woon <laughs> ak suñuy droit si njëkk <laughs> si nag waaw <laughs>

ñu may leen ñu génnee seen naka wala man je pense que loolu président Macky Sall dund New York euh, euh, candidat yi ñëw wala ñi kiy waaj a nekk président war na ci tirer ay enseignements. mooy nit ñi doo leen fatt doo leen etu étouffé mm-hmm. Sénégal mun nga fi tere manifesté mais fu mel ni États-Unis y a tellement de démocratie buntu Maison Blanche sax mm-hmm. gars yi bu ñu fa bëggee taxaw dañ fay taxaw manifesté mm-hmm. manifester wanele leen naqadi gis nañ fi euh, ku mbéj président wam parce que président boobu rassemblement am na ñëw na jege askanam mais bu ñu teree sénégalais yi manifester fii sénégalais yi nekk bitim réew li ñuy dund fii ñoom dañ koy yëg ñi ñuy jàpp fii pour ay manifestation dañ koy yëg ñooñu am na ci parti politique ñu bokk ay sénégalais lañu mun nañ yegg benn moment ñu ne comme yéen munoo leen ko ñun dinañ leen ko defal et je pense que foofu lañ toll maintenant bu ma ci delloo ginnaaw tuuti ci justice bi lay taxaw bi ci professeur Mary Teuw Niane waxee dama ne laal na fii metti ci Sénégal justice mooy góomu Sénégal bi gën a métti tey li ko waral mooy c'est le président qui décide de tout euh, moo jiite conseil supérieur de la magistrature son ministre de la justice moom mooy le vice président ñoom ñooy affecté ñoom ñooy gérer magistrat yi te li wolof naan euh, euh, xëy na ku la amali bët fu ko neex xool boo dëgërul dëgg am nag ay magistrats yoo xam ne quand même ràññeeku nañu bañ nañu ba bañ jotee ba ñu xam ne ñii dañoo bañ mm. bu weesoo conseil supérieur de la magistrature boobu nga xam ne ci lañuy ñuy affecté di muté ñenn ñi di leen sanctionner à travers doonte sax ku nekk fu ñu la yóbbu ci Sénégal war nga fa mun a liggéey parce que ay sénégalais ñoo fa nekk mais ñoom ñoo ñu tàmmal wala gëmloo ñu ne yenn affectation sanction la ba tey mënuñu ko bañ a gisee noonu mais bu weesoo loolu beneen problème bi mooy li lié euh, l'exécutif au pouvoir judiciaire muy le parquet il y un lien ombilical diggante la pouvoir exécutif ak le parquet et le parquet mooy le maître des poursuites tey problème bi yëpp je pense que non je procureur donc tey je pense que problème bi yëpp foofu la parce que li ñuy wax tey mooy détention politique Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ak ñeneen ak ñeneen ñi fi jot a jàpp ñëpp c'est le procureur Mm. le procureur ministre de la justice mooy patron wam mm. ministre de la justice président de la république mooy patron wam mm. et le parquet c'est le maître des poursuites tey par exemple si cas Ousmane Sonko am na yenn euh, délit wala crime yu ñu lay toppee le juge n'a d'autre choix que de te placer sous mandat de dépôt parce que la loi est mm-hmm. écrite comme telle. Mm-hmm. amul choix mm-hmm. même bu la bëggul woon def su mandat de dépôt foog mu mandat de dépôt la et loolu c' est le parquet qui juge. loolu moo tax réforme yi ñu fi yëkkati woon du temps de Télico même avant Télico y a eu Agissec te xam nga tey su fekkoon ne rek homme politique yi ñooy toog wala journaliste yi wala sénégalais ñuy wax ne euh, pouvoir public euh, euh, exécutif bi dafa dugal loxoom ci justice bi mun na am mu tey xel mais ay magistrats ñoo ko wax. Téliko xëy na moo si gën a ràññeeku mais avant Téliko man conférence de presse yi ma couvrir UMS yëpp loolu lañ doon kaas immixtion du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire et c'est des magistrats qui le disent donc mun nañu gëm ay magistrats démissionné nañu président dit am na dossier am ne maa ci teg sama conc le juge dem bi mu démission démission fracassante lan la wax il a fait des révélations Téliko problème yi mu am tey yëpp loolu mu ko ko indil mooy di ñaawlu le le le le le procureur euh, Ali Ndaw bi euh. nekkoon CREI donc je pense que loolu mooy principal problème mu Sénégal te nit ñi nañu nekk ci ay situation yu métti après nga leen di xañ seen àq ak seen ay yelleef mm-hmm. cin buy bax nee nañ da nga koy ubbi saxaar si di génn waaye boo ko tëjee day jikki jékki ne teel et buñ maytuwul ci loolu lañ jëm loolu peut-être moom la ñu en loolu la ñu en juin xëy na mbiram Ousmane Sonko dafa ñëw rek déclenché nekk déclic bi mais les gens étaient mm. loo bëgg def parce que tu de l'opposition dañ la koy tere des mm. interdictions yoo xam ne teguwul ci lenn. parce que tey suñ ne trouble à l'ordre public man je pense que désordre bi rek trouble bi yëpp bala muy am mooy ñu tere manifestation. am na peut-être koy tere mu bàyyi mais am na keneen ak ak mam ak yelleefam def ci xeex ba lu mu am jël. genre Guy Marius Sagna nga xam ne duñ bàyyi dara lii sama àqal dama koy jël. donc ñooñu boo leen buggee tere manifester te yow à côté say ñooñ di manifester keroog président bi mu ne du def euh, euh, troisième candidature. pourtant euh, assemblée nationale ak li ko wër yëpp dañ ne arrêté Ousmane Ngom moo tax kenn du fa manifester mm. mais ay ñooñam dem nañu manifester mooy li Cheikh doon wax léegi manifestation bànneex lañu doon mm. manifester mm. mais fii ban manifestation nga gis ñu autoriser ko après mu déborder meeting bi Pastef mujjee def Kër Massar meeting gënu ko rëy ci Sénégal est-ce que y a eu nee nañu téléphone sax sàccuñu ko fa ku nekk li nga ñëwaale woon ñibbi nga ko preuve la ci ne lañ fi defoon Parcelles ni terrain ak APEX amul benn débordement ça veut dire que kon manifestation bu ñu ko autorisé encadré ko euh, dafay jaar yoon li ci gën a bizarre mooy dañ naan des fois bu ñu ko autorisé amuñu assez de force de l'ordre et pourtant bu ñu ko teree ba pare dañuy génnee duubulu te man li ma lay wax ni euh, ay ay takk der ñoom ma ko wax maanaam dañuy génnee yow duubulu wala trois fois li doon doy pour ñu encadrer manifestation donc loolu paradoxe la et je pense que foofu la président Macky Sall defee erreur bu demee tey diaspora bi ñu yuuxoo ko diaspora bi nga xam ne 2012 bokk nañu ci ñu ko faloon mm. désamour boobu noonu en dix ans mu mu yegg ci niveau bi mu yegg nga dem New York yu lay kar di projeté parce que ñoom duñu ay chinois duñu ay japonais ay mm. sénégalais lañu donc moom warul xool kii fii la bokk kee la bokk war na ne samay doomu réew ñoo ma mere lan moo tax ñu mere ma loolu moom am na lu mu ci war a mën a jàng même bu dee bay yeey na mbuus parce que jeexal na mais ñii ñëw war nañ ci tirer leçon mooy ak lu mën a xew mayal nit ñi lu leen naqadi ñu wone ko non mayal nit ñi lu leen naqadi mais communication fu mu amul problème day am tey président Macky Sall li doon gën li ko doon gën a dimbale man gëm naa ne mooy bu demee bitim réew parce que malheureusement saa yu tukki jee ay partisans wam lay dajeel. Mhm. da ngay dégg ne organiser nañu benn mhm. genre rencontre ci benn salle moom ak waa APR. mais waa APR donc nekk ñu ay sénégalais yu nekk bitim réew. Mhm. yeneen sénégalais ñu ngi foofu gën a bëri ñooñu di dund ay jafe-jafe.